yalla bu lay may du ko may direct da koy jale sa ay nit ba nga jot ci. Mhm, macha allah. milliards yi ma yor nga yak dama tok rek ma mu jël ko ma am ko. Mhm. dedet hmm dama ñaan ay doom adama ni gis. Mhm. ni ma koy delluwaat. machallah dayar ko te bo amé fo xamné bo fa tolloo nga nek kilifa nga nek borom alal nga nek borom teranga war nga moytu de. surtout. tay la julli tay la bes julli. hmm imam bin bu ko ray pour lan la. hmm surtout ça. actualité lu doy waar. mais loolu pour lan la. Mhm. adduna bi jaxasoo na. Mhm. li amoon Amérique. Mhm. nit amoon fit boobu fit boobu si sénégalais moom la ñu yor rek. imaam taxaw kabal di war a julli nga biggo fu fekk paaka. mais amaan na sax ni ma gisee paaka bi dégg am même ni na imaam bi dafa tul. moo tax képp koo xam ne ni yaa ngi sa àdduna nag kilifa wutal tul. wutal tul de surtout. ana imam di dem di kabbal mhm. mais yalla est ce xam nga ne bu natu rot nak mhm. <laughs> boko ko bëggee yalla yaray la yalla ray la mhm. bakkan bo xamni narul de ci jour mu no ko ray xar sax bo xamni bu naru dee boko ko bëggee yalla fat la fof fo ngay sedd parce que bakkan bu naru dem yalla du ko yóbbu mais ken du weesu sa bis kep sa bis bu boo feebarul sax oto dina la mbëkk. mais faa nga dem. nga dem. yaa xam nooy demee nag. mais faa nga dem parce que da ngaa matal. parce que yàlla dalaa wax lépp loo xam ne waroon nga ko lekk rek. doy na. lépp loo war a utiliser sa àdduna jeex na sa mission jeex na kon da ngay war a tàggu rek da ngay dem. kon ku nekk bu sa bis jotee. da ngay dem mais sa bis bu jotul kenn mënut a fexe ba rey la. il faut ñu comprendre loolu. Eh. nga xam nga am nga pétrole ak gaz. ak or ak zirko. Mhm. ak jama loolu mhm. lépp mbir seytaane la rek. Mhm. loolu lépp alal la rek. te doomu aadama alal lu ko jaral moo bari. moo tax nit ki mun nga am alal te doo rey nit. nit ki mun nga am alal te doo def leen mais alal la. seytaane la. loolu nag ñëpp ku ko xamul nag. dafa xamul lu tax muy lool lu dëgg la parce que alal mooy boole ay nit. alal mooy jaxase ay nit alal mooy féewlu ay nit. alal moo tax nit ki di def lu bon alal moo tax nit di torxal nit. alal moo tax ñu agressé. Mhm. moo tax nit di def li liggéey nit mu dof wala mu yàqu. Mhm. kon dañuy ñaan yàlla bu gaz boobu ñëwee pétrole boobu ñëwee ba. Mhm. exploité. na fekk yàlla na fekk. mu nekk mu indaale jàmm. parce que réew mi. ah mi laaj na sangat di. réew mi laaj na xoolaat réew mi laaj na ni dellusiwaat xel li ñëpp waxtaan nekk benn. xam ni alal bi ñun ñëpp ñoo ko moom ñoo ko bokk. mais ki nga xamne encore moy exploiter exploiter gaz pétrole ak yoy na fek mu nek ku djub mu sedle ko niko sénégalais Sénégal boba xex du am xex du am surtout xeex bu amee rek xëccoo la ak ñàkk a ak ñàkk waxtaan mais bi ñu waxtaanee juboo ni jël ku ñu doy koo xam ne leer nga ko li ngay def teg nga ko fenn ah, parce que nañu ñi nit ni xam ne kul bu buñ la dënkee dan la mayuñu la de il faut Sall wala Sonko ku mënta doon bu réew mi mayuñu la ko dan la koo dënk dënk dënkaane dënkaane kon dënkaane après lan moo si topp. delloowaat delloowaat. Mhm. ku dénk da ngay delloo. ku ñu dénk da ngay delloowaat. Mhm. nekk loo xam ne dañ la wax jëlal réew mi ni may la ko. Mhm. mayuñu la ko dañ laa dénk dénk. comme buñ la dénkee buñ ko soxlaa. ni ngi la ko dënk woon. delloowaat ni ko noonu. te coow du am. incha allah mooy président yëpp nag laay wax Afrique yëpp. ba si tuum àdduna bi yëpp. Mhm. buñ la dénkee sa askan bu la wóole ba dénk la. Mhm. bis buñ demee ba soxlalaat ko joxaat leen ko. te mhm. coow du am. lool mooy mooy garmi loolu mooy personnalité. loolu mooy dignité loolu mooy fulla loolu mooy fayda. loolu mooy jom loolu mooy nit. macha allah. Serigne Ablaye Faye le jeune mara mu nekk koo xamante ni macha allah kenn du ko euh, naatable ci mim réew l'homme qui vit dans le social euh, yéen a ko waxal seen bopp sa su ne nee naa la maire yi si réew mi sax fi mu toll dañoo xàmmee oto Serigne Ablaye Faye bi ndax teraanga yi nga xamante ni mu ngi leen koy defal fu ñu ko séen rek nee leen daal di daw euh, ko mu génneen leen xaalis bu bari daal leen jox moom Serigne Ablaye Faye waaye tam mu nekk koo xamante ni ku yàlla baaxal la ci wàllum xam-xam macha allah di di di di di di liggéeyal nit ñi macha allah ñu si gis seen bopp dañ koy laaj bu ko defee mu joxe numéro téléphone euh, képp koo xamante ni nii am nga aajo euh, yoo xamante ni bëgg nga faju rek bu ko defee boo jokkoo ak moom incha allah euh, yàlla dina def ndox mu sedd sëriñ Ablaye Faye waa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mhm. sant yàlla war na ku nekk mhm. sut koo xam ne ñi nga xam ne ñoo fekk si julli gi mhm. war na sant yàlla ñu ko fekkoon yàlla na yàlla xalal aljana barke seen naa parce que yàlla mooy defe noonu. du mhm. julli yëpp nañu fekke. Mhm. ñii dañ koy fekke ñii duñ ko fekke. Mhm. ñun am na julli yoo xam ne ñu ngi ñëw duñ ko fekke. na julli yoo xam ne ñu ngi ñëw après. ñun duñ ko fekke. ko fekke. mais kon yàlla bu ñu yàlla yóbbee ba julli yooyu ni fekke ko na ni sant yàlla. ni fekkar ko ay yeneen julli julli julli parce que adduna bi yàlla mooy doxalee noonu. àdduna lépp xëy rek sotti. Mhm. demal maa ngi ñëw. demal maa ngi ñëw moo fi nekk. Mhm. boo fekkee da ngaa wut danga nga nekk si wut te leer. Mhm. munu fekk moo tax. ku nekk war na wuti xam-xam bu leer boo xam ne. li la mën a ubbi ak li la may mën a teraanga ak li la mën a def nga am alal nga am teraanga. macha allah comme ni ma koy defee. parce que maa ngi sant yàlla bu baax. parce que ñu bëri sama client yu bëri ak ñeneen ñu may wax dama wax boo amoon ku mel ni yow si biir Sénégal ñeneen ñeneen mm-hmm. boobaa ndóol bi dina wàññeeku ma ne waa dëgg la mm-hmm. parce que borom alal milliardaire day làkkatu kenn du leen gis mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi làkkatu fekk borom milliard bi nga xam ne ma dafa yor génne kii génne kii génne mais réew mi day dox day dox day dox mais borom alal yi ñu ngi làkkatu ñu ngi nëbbatu kenn gisu man sama wéef bu ma la génnee li ma si g wala orange man li ma si génne da ngay wax déet te pourtant xaw ma leen dama leen dana yaakaar rek ma yónnee leen. te mm-hmm. xam nga ni ku nekk tabaski. Mm-hmm. boo war nga dëgg war dëgg yàlla ku nekk tabaski. Mm-hmm. loo bëgg tabaski nga bëgg. mais boo ko amul day métti si yow. xëy na ñin mënu jox ñëpp nag. mais képp koo xam ne sa yeneen nekk na si rek dina la ko jox. dina ko jox macha allah sa wërsëg nekk na si rek dina la si jot. kon dañuy ñaan yàlla mu may nu si jàmm jàmm. nañ wuti xam-xam bu leer. Mhm. bu sell boo mhm. xam ne boo ko yoree mun nga si am teraanga. macha allah wala nga wuti secret boo xam ne boo ko amee mun nga am alal am mën nga am ay milliards de sonn. Mhm. parce que réew mi moo ko laaj képp koo amul alal bokkoo. déedéet ku amul teraanga bokkoo. ku ku la boo amul kenn du la déglu. te lépp jamono toll ni xaalis mooy doxal lépp la. mooy doxal lépp. micro bi xaalis bi nga koy jënde kenn du la ko may. Mhm. waaw yére bi nga sol xaalis ngay def. xaalis li ma sol ni xaalis la. salon bi nga toog xaalis la. kër gi xaalis la. Mhm. télé bi xaalis clim bi lay ëpp nii xaalis la. kon àdduna mhm. lépp loo xam ne ni. xaalis moo koy doxal. kon xaalis boobu ku nekk yàlla na ko am. amiin waay. te encore deuxième bi encore nga wuti kii nga xam ne yaakaar nga mën na la jox secret boo xam ne boo ko yoree. Mhm. nga am ay milliards nga dem wuti ko. Mhm. mais na nekk secret bu leew. na nekk bu nice. Mhm. na nekk bu bu boo xam ne mu ngi si julli mu ngi si woor. mu ngi si jaam yàlla mu ngi si def lépp. macha man li ma bañ mooy ngi defal la sacrifice yu araam. mais loo xam ne mu ngi si julli ma laay def. ñëwal ma ñaanal la. ñëwal ñaanal numéro téléphone bi ñaata la. 77 la. 277 50 61 xam naa dinañ ko. ayca mu ngi noonu gën ngeen ko 77 277 50 61 mooy numéro Serigne Ablaye Faye l'homme qui vit dans le social macha allah 77 277 50 61 mooy numéro Serigne Ablaye Faye le jeune mara milliardaire waaw woote ko rek mu daal lay def milliardaire fët fët macha allah ñi taal ci réew mi bari na macha allah kàddu gu mujj gi lan lay doon ak lan ngay tàggatoo ak mbokki yi. Ah, li may tàggatoo mooy réew mi réew jàmm la. Mhm. réew mi réew teraanga la. Mm-hmm. réew mi réew xéewal la. Mm-hmm. réew jàmm jàmm la réew mi dimbalante la. Mm-hmm. ak jàppalante. ak yéenante jàmm. ak uufante. ku nekk xam ni. ki la yaay. sa yaay la. ki la sa papa. sa papa la. ku la nijaay sa nijaay la. ku la mot rakk sa rakk la. ku la mot mag sa mag la. sa mag la parce que réew mi loolu lañ xam. mais bëgg na lu koy xaajloo ak lu koy yàq. Mhm. du nu nangu daara lu koy yàq. Mhm. du nu nangu daara yëf soxor. Mhm. di fi judd. ñun senegal xam na yëf soxor. xam na yëf iñaan. xam na yëf yàkkante. yenente jàmm lañu ñu xam. boo demee Dakar. noonu. boo demee Thiès. noonu foo mën a dem noonu. nañu jàppalante suñu biir. pour yàlla mën noo jàppale. mais bu nu féewlee rek la yàlla day mer. Mhm. parce que nañu jàppalante suñu biir. Mhm. defaraat suñu xol yi. Mhm. defaraat toogaay yar xale yi. defaraat jikko yi. bu mu defee rek réew mi day avancé. loolu laay tàggatu. maa ngi ñaan ñëpp jàmm nag di leen baalu ak ñee ñëpp ci jur tabaski bi mhm. di leen baalu ak ñoom ñëpp nag ci jur bi mhm. macha allah mu ngi noonu muy kaddu goo xamante ni mu ngi jóge ci ki nga xamante ni nii moom moo di Serigne Ablaye fay le jeune mara milliardaire nañ defaraat toogaay euh, sàmmaat jiko yi moom la wax euh, di kaddu goo xam ne mu ngi jóge ci Serigne Ablaye fay ah, ca mu ngi noonu xëcc bu dagul dikk mbaam yendoo teng waaye balaa boobu xam nga lu ma tëgg rax ci përëm cere ji bu ñu leen neex na luñ ko mooñee faaw ñu dem vaar euh, kan moo nekkoon ci caméra ben Njuga Njaay Sala Xari Soxna Birane Mamam ay maamam Diop Montel Mayaari Jëma Diop Samba Isama Dikk Maram Diagne moom itam dañ koy jaajëfal lépp lu fi leer rek xamal ni Mom la l'international di ji am solo Kylian Mbappé des animateurs Madad daal di ñëwoon feggoon ak yéen daal di ñëwoon li nga xamante ni moom moo Serigne Ablaye Faye seeti ko fi nga xamante Mom Modi moo Almadi merci beaucoup à tous et à tous di leen wax d'ici là buvez beaucoup de café ça fera bien merci beaucoup à toutes et à tous gros bisous à vous jaajëf